wala mun taxaa Mbacké waaye nag avant muy ñëw fi tam nee na mi ngi leen di xamal ni jaar na ma Salikul jinaa dem na visiter ko fekk ko wax dëgg yàlla mu nekk réalisation bu rëy bu mag a mag a mag mu ni moom gëm na ni bu fekkul fekkante ni Masaalikul Jinaan nekkul ni moo jàkk ji gën a mag ci Afrique tamit bokk na ci jàkk yi gën a mag yi ëpp solo vraiment ci Afrique noire fii ba mu fa jógee nag la daal di ñëw Touba nee na bi mu ñëwee rencontré na ay mbokk yu am solo ay mbokk juditam ay mbokk taalibe yoo xamante ne wax dëgg yàlla taxaw nañu bu baax a baax a baax a baax ci yombal giseem ak cheikh euh, Mouhamadul Mountakha di ci jiital ki nga xamante ni mooy cheikh Souaïbou Mbacke ma de cheikh Souaïbou Mountakha ak cheikh Abdoul Khadir Mbacke bi nga xamante ni moom mooy li ñu tuddee hamsatul wasl moo dox ci diggante ambasaad bi ak Touba. nee na daal euh, tànk yi tànki mbokk la tànki feddali li kóllëre goo xamante ni am na diggante le royaume d'Arabie Saoudite ak Sénégal certes. waaye nag diggante Touba ci boppam ak Makkatal Mukarrama ak Madinatul Munawwara loolu ci noonu la demee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ci loolu tam la ñu waxtaan seen waxtaan yëpp ci arab lañ ko def ñoom ñaar waaye lépp lépp ci mbokkoo gu yàgg gi ak euh, jëmmal gi nga xamante ni moom la fi jëmmal ki nga xamante ni mooy le serviteur de de Sainte Mosquée du roi Salman Ben Abdul Aziz mu ni loolu moom la yëg moom la wax xalifa bi nee na ko it jaar naa Masaalikul naan gis naa ni wax dëgg yàlla euh, jàkk ji jàkk ji doy na waar taar ba foo ko takk passé na ko. Euh, sëriñ bi daf koo sant bu baax a baax sant itam kilifaam yi nga xamante ni bii ñoom la teewal ci Touba tey jii te nekk ci jiitu mooy almalik Salman di buuru euh, buuru Arabie Saoudite sëriñ bi bég bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni bii am na ko tey jii def na ko. ngir ñëw waxtaan ak moom ci loo xam ne lépp itam ci day dellu rek ci njëriñul jullit ñi dellu ci jàmmi àdduna dellu ci e, loo xam ne mooy gën a dëgëral al uxuwal islaamiya gi nga xamante ni bi dox na ci diggante e, jullit ñëpp te Touba am ci place ci àdduna bi ci alalamul islami monde islamique bi place boo xam ne kenn na nattabliwu ko kon nag e, su fekkente ne bi kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réewum Arabie Saoudite seen xel ak seen yitte dañu ko def ci Touba ba tànn ku mel ne moom mii nga xamante ni moo leen fi teewal teewalu leen rek ci Sénégal waaye teewal leen ci réew yu bari ci Afrique moom mi moo ko yor kon euh, yitte jooju bu ñu ko defee ñëw ci moom sëriñ bi bëgg na ci sant na ci bu baax kàddu yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi yëkkati itam lu ko jiitu ki nga xamante ni mooy porte parole am di Cheikh Mouhamadul Bassir euh, ibnu sëriñ Abdul Xaadir moom itam euh, feddliwaat na ko bu baax ci kanamam dellu siwaat tuuti rek ci diggante euh, relation bu rafet bi nga xam ne muy diggante bu rafet bi nga xam ne naka jëkk ci taarix yàgg naa dox ci diggante euh, al mamlaka al arabia saoudia ak Sénégal rawatina nag diggante Touba ak Sénégal euh, defe naa ne ñu bari ci ñu fi teew umpalewuñ ne bu yàggul rek ay at yu néew ci ginnaaw booru Arabie Saoudite sàkk woon na ci xalif général mu tànn ab délégation yebal ko fa boobu ki nga xam ne mooy euh, porte parole xalifa général des mourides di sëriñ Bassirou Abdoul Khadr moo jiite woon délégation boobu bi ñu demee itam ñu jox wàccuwaay bu wér Touba jox ko euh, ci ci fànn yëpp rek ci diine jox ko ko ci jëflante jox ko ci doxin wu rafet kon daal ci tënk rek sëriñ bi bég na lool ci gan ki nga xamante ne bi am na ko tey li sadinatan bi kullil janna min daari minan a minna li sadinatan bi kullil janna min daari يعطى المنة